برحمتك يا أرحم الراحمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateur LCS la chaîne sénégalaise dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission mag bi la muy yeete fa tabarakallahu ñu nekkoon ak yéen ci suratul masadi ba tey xam naa tey ak jàmm incha allah saar wi day jeex fa tabarakallahu jàngoon nañu suratul masadi makkiya bismillahi irrahmani irrahim tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasaba sa yasla naaran zaata lahabin donc tey ñu war a jàng waa a am waaye abi dañ koy tuddee aliful wasli boo demee ci téere yi ni ngay fekk ñu def donc dafay jokkale alif bi doone wa amraatahu wa amraatahu donc baax na parce que alay doon waaye alif bi dafay jokkale maanaam genre liaison ngay def ak am bi wam doone wa am mais wam dégg nga da ngay jël waaw bi rek dóor ci am bi wam wa a am waaye wam parce que lii moo tax wasl aliful wasli alif la buy jokkale waaw bi ak miim bi ra a tu hu ra a tu hu dégg de wa a am ra a tu hu muy wam ra atuhu dégg nga wam ra atuhu ha amma miim ñu def shadda muy am ñu mas fatha muy ma indi alif mu xëcc ko muy amma ha amma hamma la ta al donc a ak al waaye nga def liaison muy tal hamma la tal ha amma la ta a al nga def liaison fi muy xamaalatal ha po bi ha po bi ha po bi ha po bi ha po bi ha po bi ha po bi wamraatuhu xamaalatal xatabi wamraatuhu xamaalatal xatabi wamraatuhu xamaalatal xatabi dégg nga mooy ak jabaram ka nga xam ni moo nekkoon yenukatu matt ma muy ummu jamil moo nekkoon jabaru abu lahab wax nañu ni am na ñaari version ci mufassiruun yi wax nañu ne moom daan jël ay dëkk ak ay mat di ko teg ci yoon wi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaar sa fekk bëgg ci sayduna muhammad jaar ci fakkastalu daanu wala dëgg yi jam ko mu loru loolu moo doon bëgg-bëggam ñii ne euh, yenu katum mattum ay la woon maanaa diggante bu mu fekk mu ratax dina dox ci diggante bi ak rambaaje ba féewale leen daal fa dégg nga safaraw ay loolu ñaari version la ci mufassirun yi niñ ko firee waaye moo nekkoon ummu jamil moo nekkoon jabaru abu lahab yàlla ni moom itam du yem rek abu lahab mooy dem safara du yem ci ne rek abu lahab la mu fàggu woon ci alal aki doom dootu ko jariñ déedéet waaye même jabaram ummu jamil ëllëg day ànd ak moom dem safara ci la bokk ci mbugal mi lay bokk moo tax mu ne wamraatuhu ak jabaram mooy ummu jamil xamaalatal xatabi ka nekkoon yanukatu matt ma dégg nga fii ji di jiim xarfu jiim ñu mas kasra indi mu xëcc ko nga ni ji fii gis nga kii gis nga lettre fa bi moo ngi nii fii la yem lii lonk nii wax naa la da koy xëcc day taxaw comme genre taxawaayu yaa bii comme nga waroon def nii fii gis nga boo defoon nii tey dégg nga daal di kii indi yaa xëcc fii la donc nag dañ koy binde nii muy fii ji di fii ji di ha waaw baat bi fii ji di ha mooy li ma leen waxoon ne euh, mag ñi dañ ci liggéey secret buy indi alal mooy baatu fii ji di ha bii Euh, loolu kra euh, euh, crasse yu cernu yu suuf si soxo bi daañu ko xam fii jii di ha dégg nga ha ab lun ha ab lun xab lun am mi gis nga am mi miim am shadda am kasra ci suuf muy am mi kii nuun la donc ann lañ ko waroon maas mais dafa am lu ñu war a jàngale foofu an min waaye kii amma wax naa la toujours masque sukun ak shadda dafay représenter masque sukun te ñaari sukun mënuñoo daje nii ñaari sukun nekkandoo ci comme lii mu def nii ba pare defaat nii lii mënul nekk nuun ak miim ñu mas bu ne sukun nga boole leen du nekk moo tax boo demee ci téere yi indiwuñu masque bi dégg nga de waaye yow jàppal ni ànn sukkoon lañ ko war a maas muy miin dégg nga lan moo tax léegi maasuñu ko mooy am ma kon mim ma ngay wax xablum euh, mim ma yëpp da nga def idgham waaw idgham mooy dugalante laam bi ak miim bi shadda bee tax donc danga nga naan xablum au lieu nga ni xablun min masadin loolu lañuy bind waaye njàngin mi da nga naan xablum min masadin ba léegi nga ni min masadin mais mim masadin shadda bee tax donc gis nga xa ab lun muy xablun am mi ann am amma sa din am amma sa din mim masadin kon dangay def nii lum xoolal dangay jël lum mim miim bi day day duggantewaat ak miim bi kon da ngay mel da ngaa tëb nuun bi moo tax kenn maasu ko mais sukkuun lañ ko waroon maas kon boo nee xab lum mim masadin ñaari mim yi ngay boole mel ni ku tëb nuun bi muy xablum mim masadin dégg nga foofu la saar bi jeexee yàllay wax ni fii jiidihaa dana nekk ca loosam wa doqam ba moom umu jamil di jabaru ablaha lu cay nekk xablum buum mim masadin bu tukkee ci lu ñu raw ci safara bu ñu raw safara moom la takk ci loosu umu jamil di ko direeg moom ci biir safara wala iyaadu billah waaw loolu mooy lisaar bi ëmb lii moo tax nag euh, tëkku la yàlla di ci tëkku abu lahab moo tax ñu wax ne ku koy jàng guddi euh, dangay ngay génn góor bi ñu ko waxee dafa ne doom yi léegi bàyyi leen ma jàng ko man ma tëdd waaye waxtu wam daan yeewu moom góor ga teel naa sax yeewu waxtu woowale doom yi biddanti mën leen yéen mu ne woon da ngeen ragal ku jàng saar bi guddi da ngay dee ba am na ñu bari sax ñoo xam ne bu ñu julligee du ñemee jàng suratul masadi ci julligee gi waaye fekk or loolu amul tabaarakallaahu kon mi ngoo googu wam raatuhu xammaalatal xatabi fii jiidiha xablum min masadin wam raatuhu xammaalatal xatabi fii jiidiha xablum min masadin wa mraatuhu xammaalatal xatabi fii jiidiha xablum min masadin wa mraatuhu wa mraatuhu xammaalatal xatabi في جيدها حبل من مسد wamraatuhu xammaalatal xatab kon booy tajwid da ngay mel ni ki def poésie yépp da nga koy maas ron muy sukkuun donc wamraatuhu xammaalatal xatab fii jiidiha xablum min masad noonu ngay wax سورة المسد مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة المسد مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم تبارك الله من غوغو ما شاء الله مملنا mel na foofu la saar muy saaru xaw a metti woowu ñu sant leen bu baax gërëm leen ci teewal bi fa tabaarakallaahu euh, bu ko defee saar bi jeex na suratu nasri incha allah moom la ñu war a jàng bu ñu fi del suwaatee ak jàmm muy iza jaa nasrullahi wal fath moom itam sababu nuzul bi li ko waral daañu leen ko wax incha allah buñ ca tolloo ñu sant leen bu baax gërëm leen ci teewlu bi sant suñu cameraman Mouhamadul Kabir fa tabarakallah soxna Mariam si suñu monteuse madame Fall Aminata Hadj Mansour su ko defee seen mbokk daara oustaz Mor Diouf moo nekkoon ci tablo bi dig daje incha allah subaak jàmm ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين